chers internet yu enquête 221 dal leen jàmm ci xibaar bi nga xamante ni yegg si na fi léegi di tiis boo xam ne eh, dal na ci eh, ëttu politique gi ñeel nag maire bu Fann Point E di wéy ci turu Palla Samb moom nag eh, ñàkk na bakkanam ni ki sànq rek ci fàttali nag moom Palla Samb nag pur produit bu parti socialiste la nekkoon ci nag depuis bi mu nekkee ndaw gannaaw nga xamante ni nag Khalifa Ababacar Sall amoon na tuuti coow ak waa parti socialiste ba taxawal na kuréel gi di taxaw au Sénégal ci la Pala Samb rangé woo ci Khalifa Ababacar Sall boobu ak léegi nag moom euh, Pala Samb nekk fii euh, maire bu Fann Point E jamono ji ñu wax ak yéen sax ci élection locale yi ñu génn moom la ñu euh, falaat ngir mu nekk maire ba ci biir parti socialiste nag ñëpp miine woon nañ ko mu occupé woon poste bi di trésorier ci biir parti bi moom Pala Samb depuis législative 1993 la commencé participer ci ay compétition électorale bokkoon sax ci liste national bu parti socialiste nekkoon 47e position waaye tamit nekkoon fi fii conseil municipal ci Fann Point E Amitié ci jamonoy 1996 jamono ji nag moo nekkoon maire bu Fann Point E waaye xamal nañu ni daal mujj naa ñàkk bakkanam ni ki tey ji ci dimanche bi en tout ak lu ci mënti xew moom Pala Samb nag ñëpp a ko miinee woon euh, jege gi mu jege woon Khalifa Ababacar Sall ci ay activité politique ak ki nga xamante ni moo di Barthélémy Diaz ci taxawu Sénégal du ñàkk nag fii ak suba ñu xam waxtu yi nga xamante ni dañ koy rob su boobaa tam enquête ci dellusiwaat a yaatoo ci tënk Pala Samb maire bu Fann Point E mujjee na ñàkk bakkanam ñëpp xam ko nag ci tuppalti gi rawatina ci rang wu yi ci jamono bii nag ba léegi moo nekkoon maire bu Fann Point E ci couleuru Yewwi Askan Wi ci élection locale yi ñu génn bokki konti leen di abonné ko bàyyi xel seen chaîne YouTube bi Enquête bëgg na yaatu ci actualité ak information dañ si dellu si waat incha allah